bu ma nee ça se voit qu'il est le poulain de Idrissa Seck mooy booy wax inconstance maanaam nit ku constant wul si Déthié Fall la yem ah sénateur c'est réalité il est le poulain de Idrissa moom la commencé ci moom la yem Déthié Fall c'est la même chose ça se voit que ne Idi moo ko formé Déthié Fall on se rappelle que bu ñuy dem élection législative en moom moo taxawal li nga xam ne moom mooy intercoalition yeewi wàllu bu intercoalition yeewi wàllu amee c'est grâce moom moo ko taxawal mu nekk si benn ténor ñëpp xàmmee ko si xeex yi Ousmane Sonko mas a xeex yëpp xeex yi Barthélémy Dias mas a xeex yëpp boo tourné dañ ciy gis Déthié Fall mu nekk à côté de Ousmane Sonko nekk ko jege lool waa Pastef am fu ñu ko teg am cër buñ ko jox parce que lépp mën nga nañ ko nangu ne nit ku dal nit ku teel la mais nit ku am xam-xam la Déthié faal donc ñëpp joxoon ko benn cër mu ànd ak waa Pastef mu ànd ak coalition Yewwi Wallu de 2019 jusqu'à 2020 euh, même bi ñuy dem élection jusqu'à 2024 parce que bu ñuy dem élection daanaka di jëfaat ci ci intercoalition bi la bokkoon même bu fekkee am na candidat boppam il était plus près de Pastef que que de l'autre côté que ñoom Macky Sall ak ñooñu ñu xool après élection yi six mois après bi ñu ci toogee bi fi le président Bassirou Diomaye Faye toogee semaine passée euh, la semaine passée ñu gis def benn de presse ne gouvernement ba mu fi toogee ba léegi nii le premier ministre nii le président de la république woowu ko toog waxtaan ak moom. Hmm. génn def conférence de presse di déballage ba wax ay yu bare bare wax na seen problème bi nga xam ne moom moo fi xewoon bañ forclose liste bi seen liste nationale liste parce que Déthié Fall lañ ko ji ñoon loolu ñëwaat na ci wax ay problèmes yu bëree bëri yoo xam ne am na ko entre moom ak Ousmane Sonko entre moom ak la coalition des maires mmh. léegi mu ne loolu moo tax moom dafay bàyyi li nga xam ne moom mooy coalition Diomaye président dafay bàyyi Pastef dem ànd ak waa sàmm sa kàddu mmh. ku wax sàmm sa kàddu wax Barthélémy Diaz wax sëñ Moustapha mmh. wax Khalifa Sall wax Anta Babacar Ngom wax Thierno Bocoum wax Bougane Gueye Dany mu dem ànd ak ñooñu quelque mu ànd ak ñooñu quelques jours après ñu gis ñooñu la fois passée ñu dem doon lancer seen coalition au niveau de de la VDN. Hmm. on avait noté l' absence de Déthié faal kenn hmm. gisu ko nga dégg média yi commencé naan Déthié Fall bi ñuy lancer coalition bi ñëwul. et hier on s' est retrouvé jékki-jékki gis Déthié Fall mu dem toog di waxtaan ak Ousmane Sonko di joxe ay délai ne suba dina def conférence de presse. Hmm. à quel Déthié Fall se fier Déthié Fall bi nga xam ne moo àndoon ak coalition intercoalition yee wàllu ngay àndal bi nga xam ne moo ànd ak yeewee on on est où là sàmm sa kàddu ñun sax xamutuñu exactement à quel Déthié donc muy mu ñuy wan ne en fait lenn lay ñëwaat di ko confirmer mooy politicien sénégalais moom ak parole donnée méngoowuñ il faut qu'on se dise la politicien sénégalais moom hmm. suñu Abdoulaye daf doon wax ne na nga fexe ba sa waxi démb na méngoog sa jëfi tey mhm. mais politiciens sénégalais gis nañ seen waxi démb ak seen jëfi tey c'est diamétralement opposé mhm. parce que en lu ñuy def nii euh, ça ternit même l'image de la démocratie wala ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yu ndaw yi nekk ci suuf di seetaan politique wala di am royukaay parce que politiciens yi am nañ ay ñoo mhm. xam ne dañu leen suivre dañu leen topp bëgg buñ màggee mel ni ñoom mais xale yi maanaam gëmuñu dara bu ëllëgee nan la ñuy def parce que c'est pas uniquement Déthié Fall gis combat yi nga fi mën yëpp démb rek maa koy wax ànd feek Ablaye Wade xeex yi gën a metti mu ànd feek Karim Wade xeex yi gën a metti gis nañ assemblée bañ ko fay dóor ñu fa sànnante ay coquette loolu yëpp moo ko doon def grâce à Karim Wade ñu xëy un beau jour se retrouver avec Mame Diarra Fall mu dem ànd ak Ousmane Sonko ça pose problème parfois doo xam ban politicien ngay gëm ak kan nga warul gëm mm-hmm. mu mel ni ñoom moral amuñu si dara parole donnée amuñu si dara bu leen neexee tey ñu rouge bu subaa ñu bleu mm-hmm. dafay compliqué mm-hmm. léegi nag Déthié Fall jox na les Sénégalais rendez-vous demain dina animer benn conférence de presse à la sortie de cette conférence de presse dina wax Sénégalais yi fan la mais au fait jërul sax les détails jërul ñuy weex wala ñu ñun ñëpp xam nañ Déthié Fall fu ñu féetee dem na toog ak Ousmane Sonko waxtaan nañ nee na après dina tenir benn conférence de presse te ce qui est ce qui est euh, paradoxal dans tout ça mooy Déthié Fall boobu moom moo nekk cinquième sur la liste de Sàmm Sa Kàddu cinquième ko investi la mm. léegi nag loolu benn conséquence bi a mooy supposons que ñu dem élection législative anticipée du 17 novembre Déthié Fall mu jàll en tant que député sur la liste de Samm Sa Kàddu parce que actuellement on peut plus retirer Déthié Fall des listes listes mmh. déposé nañu ko ba pare quel que soit alpha kenn mënatu ko retirer des listes euh, conséquence bu mën a jur mooy si Déthié Fall passe en tant que député dafay garder son mandat kenn mënu si dara lenn rek moo mën a coalition la demee euh, Ousmane Sonko il a bien fait de calculer ça il a bien fait de calculer loolu moo tax mu demee sous la bannière parti Pastef mais Déthié dafa demee sous la bannière d'une coalition Sàmm Sa Kàddu donc une fois que Déthié Fall comme député bu demee assemblée kenn mënulu ko dara en fait génne Déthié Fall coalition la demee coalition bu fa demee soit moom mooy am coalition mënuñu dara ci son poste de député keneen mënuñu dara ci son poste de député malgré que bu génnee si coalition bi il garde euh, sa poste de député loolu nag dafay nekk benn trahison boo xam ne yàgg nañ ko fi gis te loolu du du dundal li nga xam ne moom mooy politique Sénégal mm. loolu du du royukaay bu baax loolu du référence boo xam ne lu baax la donc Déthié Fall bu mu teelee xam ne tôt ou tard il va rallier Pastef wala tôt ou tard dafay dem ci Ousmane Sonko mi nga xam ne moom la doon àndal démb pourquoi quitter Ousmane Sonko. Hmm. c' ça la vraie question lu taxoon Déthié di bàyyi waa coalition waa intercoalition Yewwi Wallu di dem di ànd ak waa Sàmm Sa Kàddu ñu xëy un beau jour mu bàyyi Sàmm Sa Kàddu ñëwaat ci waa Yewwi Wallu daf dafay jur jiixe jaaxe yoo xam ne nit ñi leen di seetaan sax parfois pour ñu analyser leen ça pose problème parce que doo xam à quelle personne se fier hmm. te loolu lañ fi doon reproché li xam ne ñoo doon ànd ak Macky Sall gis nañ fi Bamba Fall bi nga xam ne dafa quitté parti socialiste dem relier Macky Sall sanction yi ko sanction gis nañ fi Moussa Sy nekkoon maire Parcelles Assainies bi bàyyee PDS dem relier ñi nga xam ne moom mooy Euh, euh, euh, APR APR ak benn bokk yaakaar sanction yi ñu ko fi sanctionné et puis beneen conséquence directive bi mu mën a jur mooy gis nga tey Déthié Fall une fois que mu quitté coalition bi dem rallier ñi nga xam ne ñoom ñooy Pastef il déclare immédiatement sa mort politique bu ma nee il déclare immédiatement sa mort politique mooy je vais m'expliquer il avait une carrière politique devant lui loolu Sénégal yëpp nangul nañ ko parce que c' quelqu'un de constant c' quelqu'un de rigoureux c' quelqu'un koo xam ne c' un intellectuel am na xam-xam mais à un moment donné il faudra que nit tamit nga am benn cohérence nga am benn logique Idrissa Seck si il s' perdu dans ses calculs politiques politiciens yaakaar ne Sénégal yëpp moo leen gën a muus ñëpp moo leen gën a intelligent moo dem ba yóbbu boppam retraite sans me rendre si compte Déthié Fall de faire les mêmes erreurs tu peux être blanc aujourd'hui demain noir et l'après-demain tu te retrouves avec la couleur rouge nga bëgg ne Sénégal yi am yow benn constance dinañ am ci yow benn confiance non si rallie la coalition peut-être mën na dem rallier la coalition ñu am majorité à l'Assemblée après Ousmane Sonko wala le président jox ko benn poste de directeur ainsi de suite mais bu xam ne tôt ou tard c'est c'est la mise à mort de sa carrière ci poste boobu la yem da cafal amul dara lu muy gagné Sénégal parce que en un moment donné il faudra que Sénégal ñoom tamit taxaw yeewu xam ñan ñoo ñan la Sénégalais ñor ak ñan la seen bopp ñor pourtant Cheikh Diagne kon da nga jàpp ni peut-être na am le même sort que Ndaamal Kajoor euh, Ibrahima sa gis-gis par rapport de Cheikh laata ñoo jàll directement rek si sunu invité. c'est-à-dire <laughs> doom ja ndey ja la koy. waaye tey doom ja baay ba la koy tuddee. xëy na li baay bi def ci tànk yooyu la nekk waaye bu ko defee tamit wàcc na ci politique def <laughs> foofu laay tàmbalee curiosité euh, mu nekk loo xam ne nag. peut-être man nu mu koy analyser mooy ci forme bi laay tàmbalee lu tax ma wax ci forme bi mooy dañu gis Déthié Fall boo xamante ne dafa dem seeti Ousmane Sonko bëccëgu ndara kàmm li ñuy wax lu ne fàng kenn du ko jeex noonu la ko defee parce que man jàpp naa ne su fekkee da doon dem pour bañ nit yi gis ko du dem bëccëg parce que bu fekkee da ngay dem primature ak employé ya fay yëpp nga dem fa bëccëg mën leen romb ci couloir yi di dugg di seeti Ousmane Sonko ci situation boo xamante ni y' a un certain Thierno Diop ko euh, boole ci réseaux mais kuy nëbbu moo wax ne Déthié Fall moment bii nii nii moo ngi ci la def poste mais kuy nëbbu. du dem bëccëg li ma la wax rek. xam bu fekkee ne réellement bañul woon ñu xam ko mën na bañ a dem bëccëg ci sama gis-gis parce que mënoo dem ci benn euh, primature ku ne xam na nu mu mel. parce que ay nit ñoo fay xëy bëri nañ. ci ay couloir ngay jaar forcément sénégalais bi dina la gis te ku ne xam ne jikkooy sénégalais. mooy joxe information moo ko gënal lu mu mën di am mu nekk information boo xam ne ci moom lay jóge loolu da koy sax ndamoo jaral na ko lu ne je pense que ne kooku moom xam na ne bu duggee primature ak fi muy jaar ba dugg ci biir génnaat dem sénégalais yi dinañ ko gis te buñ ko gisee fii quelque temps après nga dégg ko. donc man jàpp naa ne même su fekkee ne da ko doon nëbb tamit nëbb ba du lool loolu mooy premier aperçu bi mooy ci fond bi rek ci forme bi di moins leneen li ma si yokk mooy xam nga Cheikh mu ngi koy wax tout à l'heure <laughs> warul bett Sénégalais yi xam nga tax warul bett Sénégalais parce que Déthié Fall yaakaar naa bi mu duggee sàmm sa kàddu ba léegi benn rencontre la mos a fekkee te bi mu defee rencontre bi le lendemain dafa woote euh, dafa woote conférence de presse pour justifier wu xam nga bu fekkee da nga jël benn décision. ba pare di justifier décision boo xamante ne kenn laaju la justification je pense que ne yow li ngay def est-ce que réellement gëm nga ko bi mu ca xëyee daa justifié wu di xam ne lii moo tax mu ànd ak sàmm sa kàddu parce que Pastef nangam parce que Pastef nangam ñu jógee ci lool ñuy def lancement officiel coalition bi Déthié Fall ñëwul amoon na représentant nag bu ko fa teewal mais kenn gisu ko fa. gis nga problème yi am avec Bougane yépp kenn mhm. gisu ko ci. demul Tamba loolu yëpp ça explique que ne peut-être am na lu muy mijoter ci suuf même su fekkoon démb demul primature sénégalais yi dinañ ci posé wu ay questions ana Déthié Fall fan la nekk ba seen coalition nekk ci ay ay jafe-jafe leader yëpp daje fa kenn gisu ko fa donc il a choisi le bon moment. moment bi sénégalais yi di posé wu les ci la dem ci Ousmane Sonko pour fekk ji ko lu tax mu fekk ji ko nag parce que mënoo jël benn décision quelques quelques mois on peut dire quelques jour après nga changé décision bi am leneen loo xam ne loolu nga bëgg am na lu ko waral je sais nag lan moo tax mu bëgg jël bi les décisions mais li ma mën a jàpp mooy Déthié Fall il est plus plus en l'aise pour nekk ak Ousmane Sonko compagnonné ak Ousmane Sonko kii quiconque loolu c'est la triste réalité te gis nga boo dégloo ci conférence de presse bi muy joxe ay justification ci ay clarification da ngay dégg muy wax que ne ñoom ñoo ko woowul ñoom ñoo ko mhm. rendre compte depuis ñu faloo ba léegi sept mois woowuñu ko waxtaanuñu ak moom donc am na raison pour mu dem choisir dem ànd ak ñeneen mais loolu day justifier ne ñu ko woowee waxtaan ak moom mu continuer ànd ak ñoom def te conséquences yi ko ci mën a fekk parce que le fait que mu choisir sàmm kàddu am na ay conséquences yu dal ci kawam. Mhm. bokk nañu nekkoon ci parteem dañoo quitté woon parti bi au moment où mu dem sàmm sa kàddu parce que ñoom gëmuñu ne war nañ mën a ànd ak opposition te pouvoir nekk fi ñu nekkoon ak pouvoir di xeex ak moom je pense que ne jàpp nañ ne constance bi mooy ñu des ci pouvoir bi ànd ak Pastef donte woowu ñu leen raison pour la laquelle ñoom aussi ñuy jëloon seen ay dispositions ne ko demal sàmm sa kàddu mais ñun dañuy génn ci parti bi donc pour man. mu delluwaat ci Ousmane Sonko am na leneen tamit lu mu mën a créer ci moom mais mën na ci gagné parce que bu delloo ci Ousmane Sonko ñi génnoon parti am dinañ dellu siwaat ci moom loolu am na loo xam ne mën na ko si gagné mais li ci am solo mooy lan lay def ci ci ci image du Déthié Fall pour l' avenir politique mhm. pour man nit ki sa avenir nga war a xool mais pas ce qui est présent peut-être c'est bien beau nga ànd ak ñi nga xam ne ñoo yore nguur c'est bien beau nga ànd ak ñoom ñu jox laay poste mais tamit war ngay sàmm sa kàddu parce que da nga dem ci benn coalition boo xam ne sàmm sa kàddu lañ ko tuddee te danga toog ak ñoom ngeen waxtaan ci ay ci ay ci ay ci ay ay lignes yu yu yu leer nañ ba nga ànd ak ñoom gëm projet bi ñu nekk ba war ko mën défendre quelque temps après nga bëgg a changer lool sénégalais bi am na regard bu muy am ci yow rawatina patriote bi parce que man li may wax rek. boo seetluwee ñi yi yëpp dem Pastef patriotes yi nawloo ñu leen donte ñu ngi leen di défendre parce que mënul ñàkk mais amul loo xamante ne nii peut-être ñu ngi koy xool ci ñoom comme dignité ak du genre parce que sénégalais bi doful xam na ko am dignité xam na koo xamante ne nii ay intérêt lay défendre te li ñu gis nii mooy ne Déthié il est en train de se def de défendre ses intérêts te loolu du la may loo xamante ne nii peut-être ëllëg mën nga mën nga ci am dara ci politique donc man li ma jàpp mooy peut-être demam ci Ousmane ko bettewul mais am na lu mu ciy gagné mais lim ciy perdre moo ëpp doole fuuf te suba war na jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi peut-être day def annonce définitive que day jóge sàmm sa kàddu may dem mais le coup est déjà parti parce que Cheikh wax na ko tout à l'heure mooy liste bi dugg na e il est cinquième position ci liste nationale bi donc su nekkee député peut-être député Pastef lay doon. parce que mënoo ànd ak ñoom ba pare taxaw ci sàmm sa kàddu di défendre c'est pas logique donc suñ demee assemblée tamit Pastef moo cay gagné donc loolu trahison la te dañ lay wax ne la ku war mu jig la xamal dañ la ko jiiñ defoo ko donc euh, Cheikh mu ngi wax tout à l'heure que Euh, du moins que peut-être ki ko jàngal politique lii moo ko mais ku ne xam ne Idrissa Seck xam nañ ne am na capacité politique tarbiyu na politique ànd na ak Abdoulaye Wade ba tàkkalikoo ak moom ñu xam ne c'est un c'est c'est grand homme koo xam ne buy wax dangay xam ne il maîtrise les choses mais mmh. tey loolu yëpp amulu ko benn avantage par les mauvais choix yi nga xam ne def na ko ci politique loolu moo répercuté wu ci kawam tey lan la ko jural mu dem retraite politique te ba tey ji amoon na ay chance pour mën a diriger Sénégal parce que ku dem ci ñetti élection ñaari élection yi nga nekk deuxième position je pense que ne kooku mënuñu ko sous-estimer ci politique rawatina ci réewu Sénégal donc ci tànk yooyu la Déthié Fall nekk di mijoter li ci am solo nag mooy. qu'on fasse les les les les bons choix parce que les bons choix moo lay permettre nga mën a maintenir sa bopp ci ci langue politique bi que li Ousmane Sonko am li Amadou Ba am li Diomaye am li keneen ak keneen am nga mën ko am à l'avenir mais li ma gis nii ñuy nekk di def loolu day wane sénégalais rek ne ñoom ñëpp ñoo yem Cheikh moo la koy citer on peut citer beaucoup de leaders politiques yoo xam ne tey ñu ngi fii suba ñu ngi fee ginnaaw suba ñu ngi fee gis nga nit bu am gëm-gëm. ci li nga nekk dara du la ci jële parce que ñun mag ñu baax ñi ñuy roy sax boo xoolee mosuñu woon am fii la ñuy aw suba dañuy aw fee mm-hmm. jëlal exemple El Hadj Malick nga jël Serigne Touba ku ci nekk cause bi nga doon défendre moom la say doom di défendre ba tey amul dara lu ci soppeeku léegi politique rek ngay gis muy jël lii tey suba mu ne bàyyi na cause boobu Pastef lay àndal lii lañ gëm suba ñu ne bàyyi nañ Pastef diw lañ àndal lii lañ gëm je pense que ne loolu ça ne rime pas personnes yoo xam ne dañoo am en pur loolu lañ soxla mooy ay politiciens yoo xam ne dañuy jëmmal li ñu gëm mais li ñu gëm malgré buñ ci am ay défaite di duñ ci am résultat yu baax loolu lañ gëm parce que gëm-gëm ci nit lay nekk lu nekk ci loo xamante ne nii mais bu fekkee sa intérêt ngay wër nag tey

donc euh, mu nekk euh, commerçant marchand ambulant